wul dara ñew di fi saga yalla di fi saga alquran dafa am lu kon li tax mu def ko xam nga ko xam ko ñun ñep xam nañu ko kon nak mbum nga sam baña xam nga la bañé yeen ñi nekk ci tarixa yi ngeen ne yalla ngeen ni wër ñi bokkaale yalla ak ñi saga yalla ci yeen lañu bokk jiar contané jox cër mbokk aduna jiar contané jox cër mbokk internet c'est le bon tv kon am bokum rew mi ci chaîne chaîne la chaîne de la vérité comme am ñaari junni yoo maye mayal ku la neex waaye soo bëggee dégg dëgg jàppal C'est le bon TV donc doolay jën ndox la doolay saxaar raay la mais doolay chaîne YouTube site internet abonnement la aimer commentaire et partager xam naa ni yéen ci mais gën leen ci nekk ndax daf ci am solo lool ndax mooy sécuriser chaîne bi waaye mooy day may doole li nga xam ne moom mooy chaîne bi donc nag gars yi ma leen di présenter encore une fois rek suma mag suma xarit Cheikh Ahmadou Bamba Mboup borom global excellence groupe fële ca parcelle Assainies unité 22 villa numéro 244 borom institut pour les métiers de l'économie un borom arène de sécurité waaye nag borom lépp lu nga xamante ni tey emploi des jeunes ak service képp ku ko soxla numéro téléphone am yaa wallahi nit ku baax la te mu ngi jàpp ci développement réew mi doomu ndey Pape Modou Fall borom may nuyu sama internautes yépp nag mais maa ngi nuyu capitaine bi international de borom je réclame un million d'abonnés pour Kona le véridique di nuyu waa APEX sama dëkk di nuyu ñëpp ku lim matal di nuyu waa Montréal États-Unis di wax ni que gaay de len une vidéo yi ba jeex titre parce que c'est c'est pas pertinent sétano nga jaar ni sujet bi jaar ni nga jaar ni ki limi wax jaar ni je tous les commentaires kon vous euh, dama ñew ay ndax man je suis un témoin oculaire ci li xew ci Sénégal ci nafiq bi fi xew bo gisee nak bob vidéo ci Ahmed Cissé li suite la ci vidéo mais dégo len ma wax parce que dama doon xaar ñi ma doon menacé ak ñi ma defaloon conférence de presse di ma tëkku man parce que ci nit laa wax di ma tëkku parce que nee nañ man ci nit seen kilifa laa wax ne dañ may rey dañ may alak muy ñaseen yooyu génnoon ne dañ may rey dañ may alak te defuñu ko ci ndigalu sëñ Maay Ñas ndax toog naa ak sëñ Maay Ñas waxtaan naa ak moom donc ñooñu bëggoon naa ñu génnaat bi Ahmed Cissé mi waxee seen kilifa wu kilifa. jalla jalaalu wajal kalaam ak alxuraan bi tax tey ñu doon kilifa diine moom la Ahmed Cissé attaqué ñooñu buggoon naa bu doon yàlla moo leen doon taxaw di wax man naafiq bi nekk Sénégal maanaam loo gis ñooñu dama ne woon dama leen di dama leen di tontu mais loo gis bis lay xaar man xamoon naa dinaa am bis bu ma tontoon naafiq yooyu toogoon keroog ne konaa la ñuy alak konaa la ñuy rey parce que dafa wax wax juñ tegginewul suñu kilifa ay paa ngeen toog di def menace de mort xale boo xam ne. koo xam ne jo jombagul jubbanti koo xam ne jullit la te dañ ne l'islam tarixa li mu war a jël exemple mooy képp ku dënk wala ku réer ñu récupérer la defar la indiwaat la mais ku wax saagaw ma waxuma lu ñaaw dama déraper mooy que joxe naa une information wax naa ci loo xamante ni ba bañ ko vérifier nee nañ ah demeewul noonu te man ni ma ko foogee woon noonu la ko sénégalais yu bëri foogee da ngeen ma waroon sant sax. ci leeral bi ma leen may ngeen leeral ko parce que bi Serigne Maye Niass demee jubóole ji ñee ba mu ñibbisee guerre guerre bi continuer di am ñu bëri ñu ngi doon wax ni moom de demoon na jubóole ji waaye ñu ngi xeexaat mais ci sama wax ci laa xamee ni ndekete moom demul woon ngir jubóole ji guerre ba ay ethnicisme yi nga xam ne ay ay ay taalibeem ñoo ko doon def foofu ñooñu la doon jubóole ji te li tax ma gën ko gëm man sëñ Maye moom ma ko wax ci gémmiñam kon loolu am na sax ñu ma doon wax konaa waroo jéggalu ah kay damay jéggalu parce que bi ñu ma li nga wax amul dañ maa indil li nga xamante ni moo am te nag képp ku wax ci nit loo xam ne du noonu wala mun diffamation la man war naa ko jéggalu ci kanamu yàlla war naa ko jéggalu ci kanamu yoon it yoonu réew mi da koy tere te fi ñu ko doon waxee aussi euh, émission ba dafa relaxé de trop ñu ngi doon wax jigéen ñi di reetaan loolu aussi gis nañ ni manque de respect lu ma war a jéggalu la kon man lépp lu may def dama koy natt ba xam ne lii mooy dëgg ma def ko ndax du benn yoon boobu laay doog a wax si sëriñ Maay bi mu fi génnee di tagg gouvernement bi ne bu waxee xale yi dañu ko saaga def naa ci moom vidéo j'ai reçu pas mal de menaces j'ai reçu pas mal de mais jéggaluwuma parce que gis naa ni waxuma fa lu tax may jéggalu wax naa ci yeneen kilifa sëñ Mountakha wax naa ci moom j'ai reçu pas mal de menaces j'ai reçu pas mal parce que képp kuy wax ci Sénégal dinañ la menacer képp kuy wax li nekk ci Sénégal noo def wala ngay wax kat rek bis dina jot nga wax ci loo xam ne du neex ñenn ñi parce que Sénégal moo bari ay kuréel bëri ay ay secte ak yooyu ku nekk di défendre sa bopp au lieu ñu défendre l'intérêt général moo tax pour mu baax mu jafe pour baaxal ko jafe mais au lieu diine ji bokk sax au lieu ñu àndandoo défendre ko kenn ku nekk sa diine ja nga ja nga ja nga maanaam la nga pàcc ba nga xëcc ci sa diine moom ngay moom ngay défendre sa yoon nekkul ci ke keneen wala diine ji liñ bokk cëslaay ji ci kàddu Ahmed Cissé rek wane na ko te dinaa ci ñëw dégg nga kon bi ñu jéggalu googu ñu jéggalu dafa jaadu te it fañ ko waxee woon ñooñu dañ doon doon menacé muy 2A TV Ahmed Aïdara sax dem na jéggalu ndax mooy dëgg parce que man bu doon sama chaîne laa ko waxee sax mën naa jël risque yi mais dama ko waxee ci tele jàmbur te télé bu aussi ma ay àq sama diggante ak ñoom ma am lu ma war a def te jéggalu ko du ma wàññi dara. ndax même bu doon tooñu ma sax jéggalu sëriñ maay ñas du ma wàññi dara ndax kilifa la ndax euh, martabaam may na ko loolu kon te amuñu benn problème ak benn sëriñ wala amuñu benn problème ak benn tarixa mais dëgg bi nag dinañ ko wax dinañ wax dëgg ci bépp sénégalais wala képp koo xam ne gis nañ ni ñun am nañ lu ñu war a wax dinañ ko wax comme yow ni nga génnee di wax sa dëgg waaye duñu saaga duñu wax lu ñaaw kon ñooñu génnoon di ma menacer de mort ci dans un pays de droit moo lay wane ñun moo tax ñuy xeex pour tere sek Sénégal ci dëkk-dëkk motax ñuy xex pour tek Sénégal ci pays de droit bi ñuy wax ci tour parce que dëkk yoon dëkk bu diine di dox bu yoon di dox nit warul génn di menacer de mort nit parce que dafa wax lu ko naqari du yoon parce que nul n'est au-dessus de la loi kenn warul fajal sa bopp kenn warul fajal sa bopp mais génn di menacer de mort koo xam ne xale la julit la dafa juum nga jàpp ko nga mag ko fuuf ñu génn di ma di ma menacer nekkul intérêt diine déedéet ndax bu doon intérêt diine dinañ ko defaat ci ahmed euh, ci ci ci ci ngor si ci euh, ki ki wax waxam jurey ji nga xam yalla la defiyee yalla la weddi ak alquran bi nga xam motax tay nekk kilifa diine bu doon yalla motax ngeen di ma tekk motax tekk yoy yooyu sama mbokk biñ ci tité ak ñima bëgg dama leen yeen xamoo leen kuy nit ki da ngeen ni gëm yalla mais wóoluwu leen ko yalla sunu borom du rayal kenn noonam bu doon lool la kenn du fi dess yonante bi sax la doon xare yàlla du ko wàcc naan ko da koy xeet da koy rayal jullit ni moom mooy def effort yàlla fekk si ko si di ko moo koy rayal di yéeféer yi maanaam yàlla bu doon rayal nit noonam kenn du fi des te it encore kurus kurus balaa nga ji mën a ñaan yàlla mu mu mu jëf dafay fekk nga sellal ko nga bañ di bokkaale yàlla waaye képp ku ngëm yàlla nekk ci sa xol ba nga mën a ñaan ci kurus yàlla def kooku du tëkk doomu aadama mais nit ñi dañu gaaw a tiit quoi maanaam jullit deug du tok di tëkku nit ndax dafa wax te ci rew mi te nga mën ko rectifier te jombu te rectifier wu parce que xalé la dal avenir mu ngi ci kanamam amana sax soko ko rectifier moom mu ñew and ak yow ngeen and jaamu yalla mo gën nga di ko rey gogu ngeen ma doon tëkku bu doon deug la ci yeen diine moo tax ngeen koy ngeen ma doon tëkku tay di ngeen ko def kon Ahmed Cissé parce que ci yeen la bok nga sen la te yalla la défier ki sax ngeen wara gëna attaquer won ko ni li ngeen def li nga def ñun wuñ ko parce que def na ben vidéo am rek wahni, wax ni yalla la wara jaamu bimi wax ni alakhirah manulul kenn dara mom ko def sax euh, sama tiktok la ko def sax dugal ko gars yi naan may ëpp baax na ci lakh bu tàngat ay ay ay ay ñaseeni lay bab yeen xamoleen ma sax manam yeen da ngeen may gis ni rek ta xamoleen ma waye bu ngeen ma bëgge xam deug da ngeen may laaj wa lamb ji ma nekkon association des lutteurs wala ngeen laaj ma wa gi ma wala ngeen laaj ma ñima fu ma ku xam rek wallahi xamagu leen ma dinaa leen ko defal samay samay video ba ma dalee wax ba tey 2017 ndax gis ngeen dara lu changé ci samay mbir fu mu mënti nekk je défends les faibles dem leen ngeen laaj ma dëggantaan njaay ñi ma xam dëgg nag fu mu nekk naa ko wax fu ma gis dëgg man awma ennemi damaa déglu video baay Niass bi seexal islam ma xam ne dëgg kese la wax taalibe yi musul nax taalibe yi comme ni may dégloo sa vidéo sëñ Ahmadou Rafahi Mbacke indi ko teg man lu baax laay këyir faruma fenn ànduma ak kenn yàlla laa gëm ak yonant bi ak alxuraan ak sunna gëwuma leneen yàlla dimbali na ma sama xol yàlla leeral na ko may ñaan yàlla sama mbokku jeunes yëpp yàlla ibbi seen bët xool leeral seen xol ñu bañ a dugg ci benn bokkaale yàlla ak bën a gëm keneen ku dul yàlla wala di topp beneen bàyyu jàmbur bu dul seen bàyyi mu di leen bu lee sax dina la kërtal ci lu baax baax na ndax toppe moom fii lañ ko fekk ku dul toppe kenn du la topp mën ngaa topp nit ku baax mu jëmale la ci yàlla waaye ngay topp ay nit ñu lay jëmale feneen fu dul yàlla benn sëriñ wootewu ko te Baye Niass loolu la wax moo tax ma wane ko pour yéen taalibe yi ngeen déglu li leen Baye Niass wax yéen taalibe murid yi ngeen dem dëgg suji li leen sëriñ Tuubaa wax yéen taalibe yeneen yi ngeen dem déglu déglu ji yàlla ngeen xenc ko ngeen xam ne yàlla rek moo leen mën a dimbali amul keneen ku leen mën a dimbali ku yàlla déglu leen sëñ cheikh ndigal jéggalom yooyu muy jéggalu sëriñ saaliw mbàkke danaan toog ba mu yàgg mu ne ñaanal leen ma njéggal su suma borom ñooñu xam nañ kan mooy yàlla ñu del waat maanaam muy wone ni nafiq bi nekk sénégal dafa bari kon nag des fois sax ay nit ne ma kon ah waa yow tu es pertinent mais xam nga waa man dama la bëgg mais tarixa yi éviter di ci wax parce que day tey indil ay noon mais man man man man yonante bi salaa salaam bi muy woote su doon bañ ay noon dina fi nekk di wax dëgg man may wax dëgg man damaa soxla ku ma sopp ak ku ma bëgg ak ku man gis nga booy <laughs> maanaam nit ñi xarab ma man ak nit ñi tagg ma laa yemale man suñ may tagg sax damay tiit billaahi wallaahi wa tallaahi parce que mënoo di wax dëgg ba pare bëgg nit ñi di la tàccu wala ngay yaakaar nit ñi man man su fekkoon damaa bëgg nit ñi di wax ci man lu baax man xam naa rafet xam naa lu bi bu may bokk ñi nekk ci tarixa yi di wax lu rëy man dañ ma ko dàq ëpp ñu ma làmmiñ ëpp ñu ma fit dàkkuñu ñu maa wax dàkk ñu maa waxal mais Sénégal neex naa nekk nekk fa di waxal sëriñ yi lu baax même bu dee du dëgg bu ñu bokkaalee nga nga waxal leen lu rafet nekk fa di waxal Macky lu ko neex mais ñun loolu mën nañ ko am nañ outil yëpp pour def ko li ko li ñu ko doo def mooy gore li ñu ko doo def mooy gëm yàlla li ñu ko tey def mooy ragal yàlla li ñu ko tey def mooy bëgg Sénégal baax bu doon suñu bopp rek la ñu xalaat duñu génn Sénégal lobby bu ñu neex mën nañ fa bokk parce que am nañ tous les moyens qu'il faut pour nekk fa psychologiquement mën nañ ko intellectuellement mën nañ ko suñu charisme suñu communication may nañu ñu bokk ci lobby bu ñu neex di am xaalis comme ñëpp au détriment du peuple sénégalais au détriment de diine l'islam ñi koy def dañu ko dàq xoolal bouche li muy def te yuuxu di teel ay nit daal di wax ni sëñ Touba li muy wax dafa am dafa ci xam dara nekk fa di wax di ngandal tay yi mais ku fa nekk Sénégal am jàmm di ngandal Macky Sall ak ñi mu àndal mais ku fa def Sénégal am jàmm ay tapet nak ay dof ay laputo ñoo nek senegal di dunguru ba paré di la xass yow mi sacrifier sa bop yow mi xam deug mo la ñor ba nga ñak lepp te liñu am ñom yépp mën nga am lu ko raw parce que ya leen gëna intelligent ya leen gëna crédible ci fem ak ci tiaxan nga dëdd lool yépp ngir dundu deug ñoñu ñoy wëlbeuti ko naan dañ lay xass c'est c'est une catastrophe kon suma né ahmed cissé limu wax reyna waye du mom kessé moko fi mësa wax ku rew la mais lool deug la amna ñu né ma sax sélectionnel vidéo yi non dugal ko du ko jar dégg ngeen ko yéen ñëpp dégg ngeen képp ku fi mus a bokkaale yàlla dégg ngeen ko man dem leen sama TikTok képp ku mus a bokkaale yàlla ma dégg ko wax naa ci la li nga wax amul. ñun yàgg nañ ñu menacé yàgg nañ ñu yàgg nañ ñu def lu nekk ci Sénégal ngir dëgg gi ñuy wax mais nag képp ku bëgg a défendre li Macky Sall nekkee ci réew mii di toroxal sénégalais di leen rey nga bëgg a ànd ak moom koo foo mën a bokk dama lay attaqué ku bëgg a défendre bokkaale yàlla di. tumal yalla di tutal yonante bi fo meuna bok lay attaquer par par lo ma ci lolou kon man li fi la nek motax tax ubbiwuma front djemuma neex ken? attaquer wuma ken? kenn mais damay défendre l'idée défendre liñu yalla wacce ci kaw souf muy deug dal la han bi waxu mu wacce ñu ci kaw souf kon nan ma meytul di wax ci ki wala di wax ci lé man je parle des faits kenn te Sénégal kenn mënu ko defar naan da ngay wax ci kii bàyyi kële du Macky Sall rek moo yàq réew mi Macky Sall bu yàqee réew mi dafa am ñu ko ci jàppale. dafa am ñoo xam ne ñu ngi ne ndaw ñi di leen gëm loolu amul te ndaw yooyu dañ leen war a sauver ndax ñun suñu peut-être dugg nañ ci ba pare j'ai perdu trop de temps ci caaxaan yooyu. dinañ leen wan ñi baax dem leen topp ñii waxuñu leen bu kenn topp kenn mais am na ñu ñu war a topp waaye du ñëpp lañ war topp te waruñoo topp sant dañoo war a topp yàlla dañoo war a topp ngëm yàlla ci nit mais loolu war nañ ko mën a wax ku ko wax ñu ne da ngaa réew da ngay xeeb mag ñi da ngay xeeb kii non dama koy wax dafa xeexuma kenn ku mu neex nga gëm lu la neex mais ñun dinañ wax ni yàlla lii la wax dinañ wax ni yàlla lii la bëgg ci ñun dinañ wax ni tamit lii mooy dëkk loolu du xeex kenn kon ñi génnoon di ma def lu nekk di ma wax lu nekk gis naa sax pap sar moy ki bok ci làmb ji newon dañu créer fi ben xoma association la xoma xéxal mag ñi xoma ko xamni mbeurum làmb yi lay xéxal bam yag mom day wër rek attaquer na ma fi mom tamit def vidéo wul kon naa yéeféer la kon naa wax lu ko neex mais Ahmed Cissé lan ngeen di xaar ci mom dama tok di déglu rek yéen ñi defon conférence de presse yëpp dima attaquer man parce que da ngeen amone ay problème personnel ak man limay wax neexu leen li wax arrangé wu leen benn affaire am dérapage ngeen bëgg ci sukkandiku politiquement moo damay santaat bu baax euh, taalibe ñaseen yi nga xam ni tey euh, dimbali nañ ma ba yóbbu ma ci sëñ Maay Ñas parce que lobby bi li ñu créé woon dafa diisoon ci man dafa am lobby yoo xam ne ñooy nekk kër sëriñ yi nekkal fa politicien yi nekkal fi état bi ñooñu ñoo activé wu ñooñu ñoo def conférence de presse boobu defuñu ko ci ndigalu sëriñ Maay Ñas mooy nuyuwaat sama sama xarit sëriñ Maaki doomu sëriñ Maay Ñas man du ma mës a wax lu ñaaw ci benn kilifa diine mais dinaa wax dëgg su ma ko waxee damaa damay jéggalu maa ngi santaat ñëpp mais dëgg dafay gën di wéy dañ koy gën di wax tey ji Ahmed Cissé mii nii tey li mu wax rëy gi mu rëy ak ngande gi mu ngand ak tilim gi mu tilim tey bëggoon naa yéen ñooñu tey ngeen génnaat def conférence de presse parce que ci yéen la bokk attaqué ko dëkk ko parce que foofu sax la safee waaye chaque jour dañuy wax Sénégal doomu aadama yi la ñu gën a maanaam ay nit la ñuy jaamu que que duñ jaamu yàlla maanaam tey boo bokkee ci tarixa dangaa war a génnee loolu dangaa war a jéem a setal sa bopp ci loolu bu yu mel nii amee parce que bu ñu ne ay kilifa diine ku mel nii taxaw wax lu ñaaw yonent bi wax lu ñaaw alxuraan ku wax lu ñaaw alxuraan wax nga ko yonent bi ku wax lu ñaaw yàlla wax nga ko yonent bi ni ñu koy war a déggee ci buñ ko waxee seen sëriñ si doo ko déggee noonu kon kan ngeen di jaamu ak lan ngeen di jaamu gis naa ay yenn tappalekat yu nekk ci tarixa yi génn di taf photo sëñ eh, photo Ahmed Cissé jëlaat ay photo ay image wu yeneen sëriñ yu ndaw ndawaan yi mais du ngeen jël yeneen yu mag yi Ahmed Cissé li mu wax dafa am ñu wax lu gën a rëy loolu fuufa fuufa fuufa fuuf te bokk ci ay kilifa doon ay ay ay ñi ay kilifa diina lañ ay eh, kii lañ ay xalif généraux lañ ñi ay ci kilifa ci diine lañ nekk di wax lu leen neex yàlla di lu leen neex yonent bi mais yéen ko dégg jarul may sélectionner ben vidéo di dougal yeen yéen sénégalais yëpp dégg nañ ko kon suñ ko Ahmed Cissé défé dafa am fu ko gissé ba tax mu ñëmé ko def lutax nak nag ñi ngeen activé wo ni mu doon lu baax dal ci ko Ahmed Cissé lutax yeen mu mënoo len seen yoy mu mënoo len ko activé contre ñoñu fofu la gëna safé ku bëgg défar Sénégal dang koy tek ci dëgg ak fit munoo ne da ngay défar Sénégal da ngay xéxal dëgg da ngay xéxal yalla ba paré bu ko tek ci ragal ak bañ ku la mere ak ut ay soppe ku bëgg ay soppe def xam xam nga noo ko war a amee taxawal fee di wax sa dëgg-dëgg di réyal say wax ku wax nga di ko diw ku baax la xam nañ ni ñuy ute xaalis xam nañ ni ñuy amee Sénégal yomb na suñu choisir chemin bi parce que yàlla la ñuy xool ak dëgg ñu ay ragal duñu tooñ mais dama leen doon xamal ne rek Ahmed Cissé ku bon la ku yées la li mu wax dafa rëy ba rëy gu rëy gëw rëy gis nga ko génn na li leen wax ne rek naafeq la taxaw na biir Sénégal jéggalu génn Sénégal di saaga ñu doon jéggalu te ñun jéggalu nañ mu doon dëgg ci ñun bi ñu génnee dañoo gën a dëggal suñu jéggalu te pourtant am nañ possibilité ba doon lu ñuy wax dañoo bëgg di saaga sëriñ wala dañoo ree wala dañuy génn ko di saaga ay ne duñ ko def parce que ñun loolu du suñu mission suñu mission du saaga kenn du wax kenn lu ñaaw du toroxal benn kilifa diine wala wàcce tarax yi wala weddi mag ñi déedéet suñu mission mooy wax dëgg képp ku bëgg a sosal mag ñi ñu ne leen mag ñi nekkul woon ci lii képp ku wax loo xam ne du dëgg waruñu ànd ak nguuru àdduna bàyyi askan bi dañ koy wax kon nag ñun fii lañ nekk kon nag gaay bu leen tiit bu leen ragal dëgg la yàlla moo ko moom te kuy wax dëgg yàlla nga siy seet Ahmed Cissé bu sañee def lii ci biir Sénégal dafa am fu mu ko gisee am ñu mu ko gisee ñaaw na nag ñu ne Sénégal dëkku diine la dëkku tarixe bu nekk foo romb gis jumaa ñu asadu an laa ilaha illallah ku tekkiwul dara ñëw di fi saaga yàlla di fi saaga alxuraan dafa am lu tax kon li tax mu def ko xam nga ko xam naa ko ñun ñëpp xam nañu ko kon nag mbuum nga sa mbañaxaan nga la bañee yéen ñi nekk ci tarixe yi ngeen ne yàlla ngeen di wër ñiy bokkaale yàlla ak ñiy yàlla ci yéen lañu bokk kon nak xoolaat len sen mission ak li taxone mag ñi wote ak yoon bi ngeen tek sen tank ndax yeen yeen nga yok est ce yeen nga defal est ce fi ngeen jaar fofu la est ce fi ngeen ni wër yalla fofu la nek est ce li ngeen def yalla leen ko sant loolu dafa jara wax te loolu moy dekk contre ma kenn du ma mës a kenn du ma mës contre ben tarif waye li dëgg dañ koy wax waaw ko am ñaari junni yo maye mayal kula neex waaye soo bëggee dégg dëgg jàppal C'est le bon TV tey dëgg suba dëgg gannaaw suba dëgg asalaamaaleykum